ñu ngi fi daje tey pour euh, yëgal sénégalais yi li nga xam ne ne président Diomaye Faye dogal na ko ci ginnaaw bi nga xamee ne premier ministre Ousmane Sonko pare na liggéey bi mu doon def pour que njëg yi wàññeeku pour que ñu fexe ba góorgóorlu yi ak population sénégalaise bi ni ñuy dundee ñu yëg ne njëg yi woyof na mbir yi nag il faut ñu xam lenn mooy ne du Sénégal rek àdduna bépp la yëf yi dal depuis 2020 Covid bi ak 2022 guerre Russie Ukraine njëg yëpp a yokk rawatina pétrole rawatina li nga xam ne ne dañ koy lekk li tax mu metti Sénégal mooy ne li ñuy lekk presque lu ci bëri bitim réew lañ koy jële bu nu ko xaymaa 2017 li ñu jële bitim réew ci li ñuy lekk juróom-benni téeméer ak juróom-ñett fukki milliards la woon 2017 ci juróomi at yegg nañ ci junni ak téeméeri milliards muy ceeb muy blé muy suukar ci loolu la gouvernement bi ne dana jël ay mesures pour que peuple bi li mu daj li mu xeex ba gouvernement bi toog ñu delloo leen jukkeel ci wàllu leen fexe ba wàññil leen njëg yi gaa bi nu ñëwee li ñu fekk ci kees yi day mbir yoo xam ne ni buñ ko xooloon rek duñ wàññi dara waaye nag sacrifice bi Sénégalais yi di def gouvernement bi dafa ne dana ci indi loxoom ñi ngi sant ñi ngi ko seqaloon ñëpp muy opérateurs yi commerçants yi importateurs yi sociétés yi waxtaan bu gudd la woon ndax bëgguñu woon forcer kenn dara waaye itam bëgguñu kenn di teg loo xam ne ni population bi mérité ko bi ñu waxtaanee ñoom ba pare ñoom ñëpp. dem nañ ci sax ba yokk ci ceeb bi waxtaan ak ambassadeur ak bu Inde bi nekk fii wax su na ambassadeur ba nekk New Delhi mu waxtaan ak autorité indienne yi pour que aussi mbiru ceeb yi ñu xool ko bi nu waxtaanee ba pare lii moo génn ci ay dogal ci li jëm ci wàññi bi suukar si wàññi nañ ci fukki dërëm ñu fexe rek ba mu bañ a weesooti téeméer ak ñaar fukk li may wax nag prix wu Ndakaaru yee may wax bu dee ceeb bi wàññi nañ ci juróom-ñetti dërëm ñu wax ne waratuñ koo jaayee lu weesu juróom-ñetti fukk ak fukki dërëm am na yaakaar nag comme Inde ubbiwaat na njaayum ceebam mu jëm si ci Sénégal te yi ñuy wax ak yéen ñaari bateau ngi ñëw nga xam ne ni de na kam leen yegg na ci téeméeri junni yi tonn te waxtaan nañ nag ñoom ba dan nañ ko yokk am nañ yaakaar ne bu ceeb boobu ñëwee ak yeneen bateau yi nga xam ne day jóge Inde njëg gi dana wàcc lu néew euh, juróom-ñett fukk te loolu am nañ ci yaakaar balaa mois d'août bu dee mbiru dëwlin gi bi nekk ci bidon yi wenn euh, ñaar fukki liitar yi wàññi nañ ci téeméeri dërëm ñaar fukk ñaar fukk ñaari fukk bu dee euh, mburu mi wàññi nañ ci ñetti dërëm waaye wàññi bi mooy li nuy du commencé ñetti dërëm yi nag lenn li gouvernement bi moo koy joxe ci taxi yu mu dindi yenn yi jaaykatu fëriñ yi danañ dem waxtaan ak ñoom ndax lu mbon bon bëgg nañ ñu indi benn cinq ci kilo bu ne waxtaan wi tënkoon nañ ko presque waaye loolu lañu bëgg mooy ñoom ñu bu dee ciment bi nga xam ne ni moom la euh, nit ñi di jëfandikoo bu ñuy tabax amoon na taxe bu mu tegoon ci euh, tonne bu ne mu doon ñeenti téeméer deux mille francs dañuy ne taxe boobu dañ koy suspend ndax ba li indi woon euh, sababu taxe boobu lan la woon mooy dañ daan jël lañ ca daan jëlee dañ daan fexe jàppale pour société yi ñu fexe ñu aménager terrain yi ni nar a jox askan wi pour ñu am terrain yu yomb loolu lañ ko jëmale woon waaye comme programme boobu demagul ni ñu ko bëggee taxe boobu dañ koy suspendre jëmale ko léegi ci ñi nga xam ne ne dañu bëgg a tabax seen kër kon ton bu ne wàññi nañ ci 2000 francs waaye loolu entreprise yu mag yi bokkuñu ci li jëm ci euh, téléphone bi mooy données yi mooy ñiy jënd ay Illimix euh, ak ñoom seen waxtaan na ak opérateur yi ba nangu na ñoom itamit wàññi li ñuy jaayee seen forfait yi déjà gis ngeen ko ci Sonatel ñeneen ñi tam ñu ngi ci engrais bi baykat yi gis nañ ko ren yàggagun fii ñaari weer la taseeg wàccaayu nawet bi déjà fexe na ba sac bu ne saagu engrais wala biton litre engrais bu ne wàññi nañ ci ñetti téeméer ba ñaari téeméer loolu nag li ko indi mooy ne danoo leeral lëf yi rek du ne jox ko ku ma neex danoo fexe ñépp ñëw wax li ñuy jaayee ñu seet ca gën a yomb njëg te loolu dana continuer te loolu day wane ni yeneen njëg itam man nañ ci yegg ci loolu. aliment de bétail bi mooy li gi soxla wàññi nañ ko surtout ci tabaski gi ñu jublu lu jëm ci logement mooy kër yi gouvernement bi décidé na ne kër yanu terrain yanu nangu woon tam nekkoon mbul kàtt muy parcelles yu bari dana dem ba ne egg na soixante dix mille parcelles yu ay nit jëloon gouvernement naa nee na dafay delloowaat ci askan wi. dellowaat ko ci askan wi jox ko promoteur yi ñu ñëw tabax ci ndax gis nañ ne euh, location sonal na lool nit ñi lii nag mooy njëkk njàlbeenu décision yi jeexul ndax ñaari mbir am na ci solo mooy la ca njëkkee mooy fexe ba lii ñu décidé ñu mën ko respecté. ci loolu gouvernement bi nee na contrôle économique dana gën a nekk ci terrain bi waaye nag danoo bëggoon askan bi population yi xale yi nekk ci quartier yi association yi ñu jàppale ci nguur gi ci fexe njëg yi nu xam ne ne dañ koy joxe leeral ko njëg yooyu mu nekk yi nga xam ne moom lañuy ñuy appliqué ndax nee nañ ñu ne bari na bu ñu jëlee risque kaw suukar bi prix ban waxoon ne la war a ne pris boobu kenn appliqué wu ko dañ ne woon rek ak fanweer bu dee ndakaaru waaye appliqué wu ñuy woo foofu ndaw yi ñu ñëw jàpp ci pour que prix yooyu ñu respecté ko li ci tegu te mooy li ñuy wax magasin témoin mooy fexe ba xale yu góor yi xale yu jigéen yi nga xam ne ne sawar nañ ci gouvernement am dana jàppale ba communes yi gox goxaan yi ñu def ay magasin témoin yoo xam ne ne ànd ak banque yi jox leen ñu jënd produit yi nga xam ne ni mooy produit essentiel yi ñoom ñu koy jaay leen ko war a jaaye leeral yëf yi ba nga xam ne ni boutique koñ bu def leneen <clears throat> danañ gis ne du loolu la war a def te loolu lu ñuy liggéey la léegi ànd ko volontariat bi nu bëgg euh, fexe suqaliwaat ci fànn yépp li ci tegu tam mooy ñu fexe mburu mi décret bi doon wan nin koy jaay ak loxo yi mu war a jaay ñu respecté ko pour que prix yi itam mën a nekk li ñu joxe danañ fexe aussi mandargaal saaku yi ndax heure boo nee damay wàññi ñu ne la man lii dama koo jëndoon sàngam nangam nangam donc danañ fexe ba def ci mandarga léegi ci saaku yi utilise digitalisation ba nga xam ne ni njaay mi day nekk njaay moo ne dana leer nañ ñu boo gisee saaku da nga xam saaku bi nu mu demee